ay aboneem ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak fu ngeen mën a nekk ci umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir Sénégal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bi nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawe liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture am ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matérielam saa su nekk matérielam saa su nekkal ci loxo ay aboneem ak ay membre am ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile it ngeen dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam
alhamdulilahi rabbil alamin waliyu saalixiina wala udwaana illa ala alzalimin وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين mbokki jullit yi dafa bokk ci xéewal yi gën a màgg yu yàlla subhaanahu wa taala defal xeetu lislaam yabal gi mu yabal ci ñoom yonent bi gën a màgg ci yonentam yi mës a yabal wàcce ci yonent boobu téere bi gën a mat gën a màgg ci téere boo xam ne mës na koo jox yonent yonent boobu alayhi salaatu wasalaam ñëw di digle lu baax di tere lu bon di jàngale yoonu njub yàlla subhaanahu wa taala ubbee ci moom ay bët yoo xamante ni muuru woon na ay nopp yoo xam ni fattoon na ak ay xol yoo xamante ni dee woon na yàlla dekkale loolu yépp ci ñëwuk yonent boobu alayhi salaatu wasalaam defaat ci nit ñi mbaax defaat ci nit ñi njub ci moom la yàlla tàqalee dëgg ak neen ci moom la yàlla tàqalee njub ak sànkute ci moom la yàlla subhaanahu wa taala tàqalee yoon wi jëm aljanna ak yoon wi jëm safara ci ñëwuk yonent boobu la yàlla leeralee ñi nga xam ne ñoom ñoo farak yàlla ànd ak yàlla ak ñi nga xamante ne ñooy ay noonu yàlla yàlla subhaanahu wa taala ne ab yonent dikkal na leen boo xam ne ci yéen la bokk yéen doomu aadama yi nekk ne lépp lu ngeen di jànkoonteel ci jafe-jafe moo xam ci wàllu mbaax la lii baaxal seen diine ngeen ciy jànkoonteeg jafe-jafe ci wàllu réer ak am jafe-jafe ci dund seen diine wala jafe-jafe ci ay nattu àdduna loolu lu diis la ci moom ndax dafa xër ci yéen lool nekk ku am ñeewent nekk ku am yërmande ci képp koo xamante ni dafa gëm yàlla noonu la yàlla melalee yonentam boobu alayhi salaatu wasalaam te loolu moom mooy ay melokaanam noonu la ñëwee woon alayhi salaatu wasalaam noonu itam la demee noonu la fi bàyyee xeetam mu bokk itam ci xéewal yu màgg yi yàlla defal jullit ñi mooy ne yonent boobu yàlla daf ko def mu nekk modèle ngir ñoom nekk seen royuwaay bi nga xam ni moom la ñuy roy ci seen lépp mbir yàlla ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana am ngeen ci yonent boobu royuwaay bu rafet képp ci yéen koo xam ni yaakaar na ni dina dina dajeeg yàlla ëllëg di séentu foofa texe yonent bi alayhi salatu salaam royuwaayam la yàlla defu ko mu nekk royuwaay ngir ñun lu dul ne dafa nekk ne yàlla matal na ko matal na ko ci ay nekkinam nekk matal na ko ci ay jikkoom matal na ko ci ay jëfam lépp loo xam ne matuk doomu aadama la gu doomu aadama mën a àgg yàlla defal na ko ci ak mat wëlbatiku nañu kooku seen royuwaay la kon na ngeen ko roy loolu nekk chance bu rëy a rëy ci ñun boo xam ne dañ cee war a góorgóorlu ndax bi ko yàlla subhaanahu wa taala matalee li war a tax ñu war koo roy daf koo leeral ci alquran ne ko wa innaka la ala xuluqin azim mooy am nga melowaay melokaay melokaan bu màgg bu rafet bu tax nit ñi war a mën a jariñu ci yow nit ñi war laa mën a roy alayhi salaatu wasalaam kon bépp yiw mi ngi ci roy yonent boobu alayhi salaatu wasalaam topp njubam déggal ko jëfe ay tereem bàyyi ay tereem déggal ko jëfe ay ndigalam bàyyi ay tereem xool li nga xam ne mooy jàngaleem bi nga xam ne moom la doon jàngale te yàlla jox ko ko mu indil ko nit ñi nit ki góorgóorlu ci loolu kémte lay kàttanam loolu jural ko yiw woo xam ne mënul xam fi mu yem bokk na ci yiw yim lay jural rek moo ne loolu la la yàlla sant ndax yàlla moo ne ñu nañu topp yàlla topp yonent bi alayhi salatu wasalaam te bañ a sànq suñuy jëf yaa ayuha alladina amanu atiu allah wa atiu rasula wala tubtilu amalakum topp leen yàlla topp yonentam bi alayhi salatu salaam te kaw topp yàlla topp yonent bi alayhi salatu salaam yàlla amu ci soxla moo tax yàlla ne la kon toppal yàlla toppal yonent bi te bañ a sànq say jëf bañ a neenal say jëf wala tubtilu amalakum loolu la ñu suñu borom subhanahu wa taala wax moo tax yonent boobu alayhi salatu salaam doon wax naan kuy def ci diine di defal yàlla te la ngay def amoo ci suñu ndigal santuñu la ko ndigal li jëlewuloo ko ci moom xamal ne yàlla du ko jël yàlla du ko nangu kon loolu bokk na ci njëriñ ak xéewal yi nekk ci topp yonent boobu alayhi salatu wasalaam mu bokkat ci mooy ne ñun ñëpp dañuy seede ne moom mooy ndawal yàlla yàlla yabal na ko ci ñun bu ñu seedee loolu ne gëm nañ ko li muy tekki mooy dañ ko war a topp ndax yàlla daf ne wa ma arsalna min rasulin illa li yutaa bi idnillah ku yàlla def yonent yabal la ci nit ñi rek c'est pour ñu topp la kon amul benn sens nga ni gëm nga ko ne mooy rasulullahi yàlla daf koo yabal ndaw la baatu ndaw lu muy tekki mooy ku ñu yabal ci yow jox ko ay santaane jox ko ay tere mu naan la yàlla nee na ni yàlla nee na la kooku boo ko toppatul kon boo ne seede nga ni yàllaa ko yebal la nga wax amul moo tax bi naafiq yi ñëwee ci moom ne ko seede nañ ne yàllaa la yebal yàlla def ne yàlla xam na ni moo la yebal waaye yàllaa ngi seede ne naafiq yooyu li ñuy wax du dëgg ida jaaka almunafiquuna qaalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yaalamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu inna almunafiqina la kaadibuun yàlla ne la ñuy wax du dëgg la ñuy wax du dëgg yàlla neewul ne wax ji ñu wax ne yonent yàlla nga du dëgg déedéet waaye yàlla li mu wax ne du dëgg mooy wax ji ñu wax ñoom ne loolu seede nañ ko yàlla ne seen seede boobu du dëgg ndax seede du yem ci làmmiñ seede bu dëggoo ci xolu nit daf koy dëggal ci ay jëfam kon yàlla ne naafiq yooyu di seede naan seede nañ ci yow ne yow yonent yàlla nga la ñuy wax du dëgg ndax seede bi ci seen i làmmiñ la yem kon ñun bu ñu seedee ne yàllaa ko yabal dañoo war a dëggal loolu ci suñuy jëf ci roy ko topp ko xam lan la jàngale ñu tënk ci loolu waaye seede ne yàllaa ko yabal yamul ci làmmiñ loolu kon bokk na ci njëriñu topp yonent boobu alayhi salatu wasalaam mu bokkaat ci itam ne wax ji ñuy wax ne bëgg nañ yàlla koo ne ko bëgguloo yàlla mu futteeku xeex ak yow liy dëggal bëgg yàlla mooy topp yonent yàlla bi yàlla def ne qul in kuntum tuhibbuna allah waxal nit ñi ne leen bu dee bëgg ngeen yàlla fattabi'uni na ngeen ma topp bu ngeen ma toppee yàlla defal leen lu gën bëgg yàlla te mooy moom yàlla mu bëgg leen bu ngeen ma toppee yuhbibkum allah wa yaghfir lakum dunubakum loolu abdullah ibni masud nee na yàlla dafay nattu di éprouver képp kuy woote woon ne bëgg na yàlla yàlla di nattu sa woote googu ngay woote woo ndax dëgg la wala du dëgg ci ne toppal yonent bi alayhi salatu wasalaam kon ñun suñu bëgg yàlla ñu ngi koy dëggalee ci topp yonent yàlla bi alayhi salatu wasalaam topp yonent bi alayhi salatu wasalaam garanti la ci képp ku ko def ne mi ngi ci yoonu njub ndax moom la yàlla subhanahu wa taala wax ne wa in tutiuhu tahtadu wa ma ala rasuli illa al balaagu al mubin mooy benn nit bi yàlla garanti ci alquran ne bu ngeen ko toppee di ngeen jub moom la yàlla wax ne wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim moom rek la yàlla waxal désigné ko moom yonent yàlla bi ne ko yow da ngay jubbanti nit ñi di leen teg ci yoon woo xam ne yoon wu jub la siratullahi alladi lahu ma fi samawati wal ard te yoon boobu mooy yoonu yàlla bi subhanahu wa taala moom ngay jubbanti nit ñi di leen ci teg kon loolu garanti la ci ne bu dee bëgg na nga njub toppal yonent bi alayhi salatu salaam yàlla moo la garantiral ne la boo defee loolu am nga njub lu yàlla garanti nag ak lu nit ñi garanti bokkul mu bokkaat ci tamit ne dinañu musal ci réer bu fekkee góorgóorlu nga ci topp yonent bi alayhi salatu wasalaam ndax réer ci diine moom li ci gën a gaaw mooy bàyyi fi njàngale yonent bi bàyyi fi njubam doyloo leneen topp leneen yàlla moo ne woon fal yaxdari alladina yuxaalifuuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adabun alim ñiy wuteeg mbiru yonent bi alayhi salatu wasalaam nañ moytandiku ñaari mbir dal leen ñaari mbir dina leen dal benn bi mooy fitna mooy sànkute ak diine ju yàqu fii ci àdduna wala bu ëllëgee mbugal moo xam ne mbugal mu tar la loolu la yàlla wax ci alquran ñëpp di ko dégg yu xaalifuuna an amrihi kon tënku ci njubu yonente bi alayhi salatu wasalam garanti la ci nit ki bañ a réer fii ci àdduna waaye bu ëllëgee itam yàlla musal ko ci mbugal moo tax alxaafid ibne kathir ne yonente bi alayhi salatu wasalam bu yàlla nee na ñi nga xam ne dañuy wute ak mbiram nee na mbiram mooy njàngaleem mooy njubam mooy yoon wi mu jaaroon nee na loolu moo war a nekk nattuwaayu bépp jullit nee na mbiru yonente bi alayhi salatu salaam moo war a nekk balance su bépp jullit lépp lu muy jël ci diineem ci luñ ko wax wala jëf da ko war a natt ci njub googu yàlla garanti ci alquran ba xam dëppoo naak moom mu jël ko bu dëppoowul ak moom mu sànni ko ndax loolu la yàlla sant boo ko defulee rek yaa ngi ci danger mu bokkaat ci tamit ne topp yonente boobu alayhi salatu salaam mooy yoonu yërmande mooy yoon wi yàlla wax ne bu ñu ko defee dinañ am yërmandeem subhanahu wa taala ndax yàlla subhanahu wa taala moo ne wa atiu llah wa rasula laallakum turhamun topp leen yàlla topp yonent bi bu ngeen ko defee di ngeen am yërmande yàlla subhanahu wa taala yonent bi alayhi salatu wasalaam topp ko mooy sàmm xeetu lislaam ba xàjjalikoo ak xiiroog ŋaayoo ci wàllu diine ñu muccug ci dara indiwuñu indewuñu lu ñu nekk ci wuute ci ne ñu ñëpp ñoo bokk gëm yàlla gëm alquran gëm ko moom ne yonent yàlla la ñun ñëpp bokk di jublu di jublu ci kaaba gi ba noppi wute ci suñu wàllu diine ba muy àgg léeg-léeg ci nooneel sax goo xam ne day nekk suñu diggante te ñu waroon nekk ay mbokk ndax yàlla li mu wax ne innamal mu'minuna ixwa ñi gëm yàlla seen gëm yàlla googu da leen di def ñu nekk ay mbokk lan moo tax mbokkoo googu deñ ak noonoo ñëw toog palaasam te ñu ne ay jullit lañ li ko gën a waral ci jullit ñi indi ko tey ci liñ nekk di ko dund mooy ñun ñëpp tënkuwuñ ci li fi yonent bi bàyyi yonent yàlla bi jàngale bi mu fiy jógee dénk xeetam ne leen topp leen lii ma fi bàyyi sama njub gii li fiy ñëw ci ay coow bari na lool lool lool lool ak ay wax ak ay xiiroog ŋaayoo waaye bu ngeen bëggee am njub continuer leen di bàyyi ci la ma leen fi bàyyi ndax lii la leen yàlla gërëmal ndax loolu la yàlla garanti laata mu fiy jógee yàlla nee na gërëm na loolu al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diinan yàlla nee na gërëmal nañu loolu mu nekk diine yàlla matal na loolu def na ci njub gu mat sëkk saxaaba yee ca nekkoon ñooy ñi gën ci xeetu lislaam ñoom yàlla da leen garantiral ne dugg nañ aljana fekk ne ñi ngi dox ci kaw suuf kan ci ñun moo am garanti boobu kan la yàlla ci ñun garantiral loolu saxaaba yi ñoom am nañ ko te li leen ko may mooy roy yonente bi alayhi salatu salaam ak doyloo njubam ñun ñu ñëw ne bëgg nañu texe bëgg nañu aljana gis ñu réaliser loolu ñu romb leen fi di dem di seeti ji leneen kon suñu bëgg yonente bi alayhi salatu salaam mbokk jullit yi nañ ko jëmmalee lii yàllaa ñu ko sant lu yomb la du samay wax du waxu keneen nañ jàng alquran nañ ko tekki mooy téere bi dox suñu digganteeg suñu borom yonent boobu la yàlla tànn tànn doyloo ko yebal ko ci ñun nañu topp leen ko bu ñu ko defee diine ji simple diine ji yomb bu ñu ko defee ñun ñëpp bokk gëmandoo lenn mbir ndax lenn la fi bàyyi jàngale ko buñ buñ buñ ko doyloowee diine jëpp leer lëndëm lëndëm yeeg lënt lënt yëpp teggee ko waaye loolu moom moo jafe tey ci jullitu tey xam seen yonent xam njàngaleem xam njubam doyloo ko ak li coow li bari bari yëpp te ñun ñëpp gëm nañ ne mooy ki gën ci mbindeefi yàlla yi ci moom la yàlla baaxee jaarale mbaax mi ñu nekk lu ñu xam ci njub lu ñu xam ci lu baax ci moom la ko yàlla jaarale lépp lu ñuy def ci lu baax rek ci yonent boobu la ko yàlla wàcceel kon lan lañ war a mën a seeti ji feneen loo xam ne moom jàngalewu ko ci njub te ku ku dugg ci ñun ci bàmmeel malaaka yi bu ñu ñëwee dinañ la ko laaj amul nit doomu aadama bu ñu lay laaj mbiram ku dul yonent yàlla bi alayhi bàmmeel ci lëndëm googu kenn lañ lay laaj mooy ki yàlla yabaloon ci yow loo xam ci moom du keneen lu tax duñu góorgóorlu ci jàng njubam jëfe ko yonent boobu alayhi salatu salaam mat na mat bu tax ci njàngaleem ñu war a doyloo njub googu ndax mooy ki gën a xam dëgg ci nit ki gën a xam ci nit ñi dëgg ki dàq leeralal nit ñi dëgg ki gën a bëgg a leeralal nit ñi dëgg ñetti critères yooyu doo fekk kenn mu raw ko ci lu ne daj na ko ba yàlla naan ko ci alxuraan di nga rey sa bopp ndax bëgg nit ñi njub di nga rey sa bopp ndax bëgg nit ñi jub laallaka baaxiun nafsaka an laa yakunu muminin fa laallaka baaxiun nafsaka ala athaarihim in lam yuminu bi hada alxadithi asafan di nga leen topp di leen woo bay rey sa bopp ndax ñàkk ñàkk gëm lii la la yàlla jox li ma jàngoon ci aaya bi léegi laqad jaakum lan la yàlla wax xarisun aleykum bil muminina raufur rahim yàlla melal yonent boobu ne dafa xër loolu ci yéen am yërmande ak ñeewent ci ñi gëm yàlla kon kenn ëpp ko yërmande ci xeetam kenn ëpp ko yërmande ci nit ñi bu ñu xamee loolu loolu dafa war a tax ñu doyloo kon njàngaleem alayhi salaatu wa salaam mu doon wax ci xadis Abdullah ibn Mas'ud moom yonente bi alayhi salaatu wa salaam ne xam leen ne amul lenn lu leen di jegeel aljanna di leen soril safara lu dul ne digal naa leen ko amul lenn lu leen di jegeel safara di leen soril aljanna lu dul ne tere naa leen ko alayhi salaatu wa salaam looloo tax mu sañoon a wax moom yonente bi alayhi salaatu wa salaam ne kullu ummati yadxuluuna aljannata illa man aba sama xeet yépp dinañ dugg aljanna ba mu des ku bañ lànk ne du dugg ñu ne ko duggal mu ne du ma dugg qiila wa man yaba ya rasulallah ñu ne ko waaw kan mooy lànk dugg aljanna yow yonent yàlla bi mu ne man ataani daxala aljanna wa man asaani faqad aba ku ma topp am nga garanti ne di nga dugg aljanna waaye ku lànk bañ maa topp nag kookoo bañ a dugg aljanna yàlla nañ yàlla boole ci ñi topp yonent boobu alayhi salatu wasalaam rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasanatan wa qina adaba annar rabbana la tuzi qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك ورزقك وفضلك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir Sénégal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bi nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawe liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture am ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western Union. dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm